booy dem stade gis nga fii nii bu ñuy bu Karba di génn fii paa ak maire dañ koy gunge ba ville oññeeku waat dañ koy gunge ba ville oññeeku waat man damaa bëgg Karba bu amatee lam combat nga ñëw fii yow nga xool départu Karba booy ni nii ñun ñun dañuy sonn si ñoom moo tax ñun ñuy sonn si ñun gis nga combat bi passé booy xool supporté wu ñu sax fii riis six rii la six cinquième rii bi wala fa lañ jàddee ndax booy dañ ne noo liiru du combat li mu woo dëgg la dafa blessé entraînement wul si combat bi Opel Pérez sax defuñu ko Opel Pérez defuñu ko sax parce que xam nañ ne kii moo ko man mais bañoon toog toog bu yàgg moo tax mu jël combat mais moom bu dee entraînement noor ak nawet day day entraîné su la neexee nga bàyyi ba nawet bi dugg nga ñëw fii nga xool Karba noor ak nawet day entraîné doole yi bokkuñu te ma dolli la si lenn saa yi bëreegul de barki Seydina Mohamed bëreegul. ñun karba mi ñu doon toppa mbapat ba 6 di du matin ñu ñibbise moom mu dem tëddi ñun ñu takk suñu dàll dem liggéey 6 heures ñu wàcca noo yàlla xam na ne karba moom bëreegul barki naa Mohamed bëreegul parce que li ngay toppa si mbooroo buggul ñëw saax-saaxee combat am li toppa ak samuraay ni ñuy sonnee si moom loolu lay sóor mais karba bëreegul dañ ko jox si booyu soxor yi gars yi mën a xam bëreem yàlla xam na loolu waaw loolu laa amoon si lu ma siy sànni rek di jégalu ñëpp di baalu àq ñëpp di ñaanal ñëpp yow yàlla na yaa defal jàmm nga dem ba am sa télé boppam di jaay Seydina Mouhamed yàlla daaxal la cat ak làmmañ ak seytaane waaw ñu jox suñu prési waaw kii mooy gaynde waaw salaamaaleykum wa rahmatullah waa Mérina waa Tëngéej waa Sénégal waa OSTV ñu ngi leen di nuyu bu baax yéen tamit di rafetlu seen liggéey ak seen njàmbaar ak seen euh, liggéey bu sell macha allah lu bari waaw waaw euh, euh, Karba moom defe naa ni daanaka booy xool bi mu génnee di bëri sax la koy ñu bari xaw a xam ndax yaroom wante lu muy yaru yaru yëpp terewu ko nekk jàmbaar boo gisee kii mu mën a téye mën a àttana mën a téye mag mu yàggal ko fenn ndaw noonu góor noonu jigéen noonu yaroom moo tax nit la koo xamante ni macha allah tamit nekkul nit ku jóg am doole di bëre dafa xam bëre mën bëre man defe naa ni su ma doon gars yi sax yow sa bopp heure bi buñ la dugalul ci gaal dugg ak yow ci géej gi defee fa mission bi dañ ko waroon def ci ci ci ci tefes gi waaw géej gi ne suñu ginnaaw ngay filmer pour wax la ni rek tefes gaa ngi nii ah gaa yi bëri la xam macha allah mu doon xale bu yaru xale bu sawar ndekka jàmbaar kenn du ko jiit tamit ci benn liggéey liggéey jàkk ji fi mu ne nii kenn mënu ko ci liggéey quartier bi kenn mënu ko ci daara ji kenn mënu ko ci te tamit ñeme na entraînement ASC bi kenn mënu ko ci macha allah moom ak staffam bii mu àndal nga xamante ni defe naa ni déglu nga leen ñoom nag ñoom ñëpp ñoo yam koo ci laal kenn rek laal nga ko ci des ah ci ci gàttal nga xam ne lu nekk ci Karba moo ne ci ñoom lu ne ci ñoom moo ne ci Karba waaw macha allah mënuñu wax nag bay di sori te nuyuwuñu suñu jiitu kàrce bi ah parce que quartier bi am na imaam muy imam Amsata Fall vraiment nga xamante ni nii diggante Tëngéej ak Tiwaawan Ndakaaru Sénégal ñëpp xam nañ ko nga xam ni macha allah suñu mbokk murid keroog bi ñu naan alaaji Malick tawal mu naan leen loo leen di wax nii ñu nekk si xam nañu ne Serigne Touba du xamul dof tawal boobu naaj bi tàng na ca tool ya gis nga papay bàyyi Hamza bi mm-hmm. ah imaam Saybata Fall mm-hmm. moo daw tibb suuf si mm-hmm. ñëw ci alaaji Malick nankaan si li nekk ci pepp suuf ci sama loxo bi xam naa ko te xam naa benn bu ne lu muy sàbbaal xam nga kooku ku ko di tawal mu taw kooku rek doomam nag nekk fii di imaam Amsata Fall nekk ci quartier bi ah, nga loolu lépp maa ngi la koy waxaale pour wax la ni quartier bi quartier bu mag la quartier cosaan la mm-hmm. alaaji bu saaxo ku ne xam na ko moo doon jiite jàkk ji ñuy tabaxaat nii macha allah moom tamit di doom ci Elimane Sakho xalifaam bi fi nekk di alaaji Habib Sakho ñu koy nuyu quartier bi fii la Mbaye Jacques Diop dëkkoon mm-hmm. tëngéej gi wërngal këpp fi mu toll nii ki fiy maire ci quartier bii la dëkk mm-hmm. di la député maire docteur Omar Cissé donc loolu lépp pour wax la ni quartier bi daal du quartier bu ndaw ñu fi toog ñii ñëpp tamit di ay kilifa vraiment ñu ngi leen di nuyu ñu ñëpp di nuyu le président du conseil de quartier di nuyu les deux délégués de quartier parce que ñun ñaari délégués de quartier la ñu am Ibou Ciss Ndong ak euh, Déthié Wan euh, Ibou Ciss euh, ak ak Maguette Tall Déthié Wan c'est le président du conseil de quartier man nag may wax ci turu commité directeur u ASC Dóor Fopp moom mooy ASC bi je me nomme Abdou Aziz vraiment ci ci ci yaatal daal loolu mooy li nga xamante ni mënuma ko woon bañ a wax ci suñu lutteur national bi parce que nag ñun Mérina mooy suñu état <laughs> donc euh, suñu lutteur nationale bii di Karbala loolu mënuñu ko woon bañ a wax ci moom quoi di sant notable yi ci koñ bi yëpp nag macha allah di leen nuyu di dellu di leen jaajal fël yéen tamit waa télé bi ah OSTV yàlla na yàlla yàggal leen dëgëral leen yokk leen bi jaay Cheikh salaamaaleykum. salaamaaleykum maa ngi nuyu ku nekk sa tur ak sant <laughs> waaye nekk ku nekk euh, ñun nag li nga wax noonu du làmb ñun làmb yu métti leen bëgg mooy li ma la sànq rek ñun si kattan yàlla ak baaxam ndem soob na yàlla xaw ma dinaa ko fekk xaw ma fekk dans roi des arènes lañ soxla soxla ay làmb yi ñii nekk si làmb ñoo leen mën fuuf. du ay caaxaan bu da caaxaan jeexee parce que làmba ji man sax dew ma stade parce que xam naa lii du làmb lii du làmb man maa gën a xobe mais lii du làmb làmba yu mag lañ bëgg làmb jànq jànq yoo xam ne day met tàng sens boobaa la ne xam kan mooy bala mais ñi nii nii mën noo xam bala parce que bu ñu tope kii yi Fallou Ndiaye dañ bëgg bu ñu utal dañ utal làmb jànq grand combat làmb jànq si punkal ñi ñi naan ay ay ay ay ay ndaanaan la ay tonoor ñun ñoonu leen soxla mais soxla nu booy booy du làmb année bi dana la jox lu mat ay ko ay dix la kii nga delloo ay dix avance lan la koy jox ñu koy delloo ko jox avance mu delloo ko jox avance mu delloo kon loolu nit moom boo demee ba ragal rek nga bàyyi ko nan seet punkal yi ñun Balla gay sax soxla nan ko bu paree Balla Gaye bu paree soxla nan ko billaahi wallaahi Balla Gaye bu paree woon suba suba soxla nan ko ku dul moom soxla nan ko ay Modou Lo yëpp ku si pare soxla nan leen ñun soxla nu ay booy ndaw yi de ñun dans deux ans dañu bëgg doon roi des bu sax dàkk nag laa waaw nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp surtout booy dañuy sonno lool bu làmb jotee waaw ñëpp ñu leen di sant di leen gërëm mais ne Fallou Ndiaye mutal ñu làmbi jànq Balla Gaye bu paree pare nan Modou Lo bu paree pare nan ñoom ñëpp ku si paree pare nan ñu soxla nu booy parce que booy du ay làmb ñun roi des arènes lañ soxla ni ko ñaan ñu soxlaa ñoo gën a soxla fuuf instant bi dañ xiif parce que lii nii passé mbapat sax katane billaahi li passé mbapat sax ren salaamaaleykum maaleykum salaam waaj jaaxaan loolu day làmb loolu du làmb làmb day metti sens ñun yooyu leen bëgg tàng jër comme suñu dernier combat bi passé te loolu sax du làmb ñun loolu leen bëgg làmb bu metti bu sens boobaa la xam ndax Karbala ndaanaan la wal du ndaanaan ndaan foofu leen kay xamee mais làmbu ndaw yi duñu si xam ndaanaan parce que naa dëkk mën doole wala sens la mais làmbu jànq ngay wut boobaa la si loolu leen soxla waaw gannaaw bu ñu sant yàlla julli di di julli si Sidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sant suñu ñaari nuyu bu baax waa waa koñ bi di sant suñu yaay ak suñu papa yi ak suñu grand frère yi di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal yàlla ñëpp jàmm waaw di ñaana mbër mi jàmm quoi mbër mi moom suñu waay la quoi yàlla xam nga rek moom suñu grand la suñu grand bu baax xam nga nekk ci koñ bi nekk di di jëf-jëf bu rafet quoi xam rek di ko ñaanal jàmm quoi. xam nga di xam nga mooy li wax rek lu soxlawuñu ay combat yu combat gu métti métti métti moom la soxla ko wax dëgg yàlla. boo demee si Fallou Ndiaye nga wax ko loolu xam nga wax ko ne ko combat bu méttee métti métti lañu la ñu bëgg te nag nga ne ko euh, combat moom dafa war a am am jël ay dafa dafa war a bëre gànnaaw combat parce que parce que jeexal na xale yëpp moom mi dafa war a nekk dafa war a jël dafa war a nekk di jël ci mag ñi bëreek ak ñoom moom dafa war a bëree gannaaw combat ndax parce que dafa jot moom mu bëree gannaaw combat man loolu rek dool dafa jot mu pom bu moom mu bëree gannaaw combat loolu dafa jot moom mii mu bëree gannaaw combat loolu la kese la assuy dool yi di sant yàlla bu baax nag di nuyu Fatou bu baax. di nuyu di leen siyaar waa OSTV di leen jox seen wàccuwaay. di leen wax si mbër mi rek mbër bi li ñu siy wax lu tuuti la rek lu tuuti muy mbër mu kul bu dëkkaas ñu na ah, lu yàgg temps booy ba léegi lu xam ko mu yàgg a bëgg a bëre def mbapat côté bii nii yëpp xam nañ ko si wàllu mbapat amul lu mu deful fii si mbapat drapeau bu ne jël na ko fi saako ceeb bu ne ŋànk na ko indi moom tey bu jëlee si arène bi nag di def ay victoire ni lool du ñu bett ndax lu ñu xam la si moom maanaam mbëriñ ngay jox ñun stade bu ñu fay dem. maanaam du na am pression quoi day xam kii bu ngay néeb da ngay daan ndax xam na li ne si moom xam na ni mu fonkee entraînement ñu duñ ko mu ngi nii toog keroog mu daanee la laa ko wax mbër boobu jàll na demal ñu xooli beneen takal taalal mboro bi dem entraînement mbër na ma maa ngi si damuñ ko jógee mu jógee entraînement suñu xool day sedd moo tax combat bu jotee day taal suñu mën def si essence def suñu mën mu jox ñu victoire ñu ñëw ñun nag promoteur bi lay lancer appel rek combat bi di ñëw gars yi ñu ngi naan ay Guinée ñun à domicile a bëri à domicile waaw fii nga leen juuf nga leen juuf waaw waaw xam nga lu tax gars yi da leen fekk instant da leen fekk dóor leen ba sonn ay ay instant am nañ 7 7 0 léegi nag bii di ñëw leen bëgg à domicile ñu takk convoi dox ndànk dem nga leen juuf waxuma ay mbër yi nii ñu jox mbër moo xam ne nii ñoo koy coow de waaw wax ñu ay mbër yi nii gars yi nga xam ne boo nee boo woo nii rek bu ñu gisee sa rek joow bi rek waaw dem pare. non gars yi dinañ ñeme gars yi dinañ ñeme boo boo ñëwee da dalal ñun fair play lépp ñun moom non à la violence lay def si lamba ji day dem bëri daan ñibise mais à domicile leen bëgg a bëri fii Fallou Ndiaye ñu ngi koy wax li muy jox si bologu tukkee dafa tuuti 15 quarts yi ñu yóbbu bii passé mm. bii di 30 lay <laughs> jox. vingt cinq bloc waaw ah, bu ñu joxee vingt cinq bloc bu ñu ko jaayee xam bi soppi nañu jox grand combat waaw léegi ñun bii di ñëw nii yow ba ba ban mbër nga yaakaar ne instant yii nii mooy lëmb si booy yi foofu kuy safara loolu li may wax ni safara yow safara boo sottee ndox mu fay <laughs> ah voilà li grand bi wax sapeur ngi safara boo sottee ndox mu fay ah yow kay da nga naan safara ak safara mu gën a tàkk jëm si kaw hmm. léegi nag safara. safara hmm. ak safara boo lañ bëgg mais kii sapeur la boo indee safara da ngay fay da ngay xool beneen mbër moo xam ne nii euh, sapeur la comme moom ñuy rosante ay ndox mooy kuy di dal tël tël hmm. ñun ba léegi xeexaguñu sax xeexaguñu waaw saa mbër yi ngeen yaakaar yëpp nii booy waaxu na leen ay ay ay kooku nu mu tudd waaye way bébé julle ay fils de liiru ñooy booy tàng yooyu ñu ñu waxoon noonu ñooy ñooñu dem nañ leen kaasu lewal ngaa yéen waaw nañ gaa ay safara ay safara safara boo koy indee ñu kii ñun xola mbëri am public yi leen bëgg yin wax ne ñoom ñooy dëkku làmb yi yooyu noonu seen booy révélation yooyu noonu nga xamee ah ay baaba jaxal moom la kii daan bii baada grand bi ah. ah mais eh, non non kooku bëggatuñu kooku ab paa waka daan paa waka jàpp dóor ko ba mu sonn mais non mën nañ ko de tamit ah. non mën nañ ko ñëw joxoon nañ ko mu daw. waaw ay job deux. ñoom hmm. nañ ñëw. Hmm. ooy nañ ñëw. waaw jeex ah, saa ji jeex jàmm fu ñëwee fii ki la fi fekk. waaw gën a jeex jàmm foofu <laughs> waaw. gars yi daal gars yi nu daal mooy daal Fallou Ndiaye nañu jox gars booy bu tàng jër. bu am public nag nga xam na ñun buñ yuuxoo ñoom ñu yuuxu ñu koy joxante si stade bi. Hmm. léeg-léeg duggee si géew bi nag ñu jël ko dem waaw ne ñu jox tàngaay waaye tamit dañ bàyyi ñii ñuy jox nii kii ki woon bii passé nii xóob rek moom waaw gaaw tëdd di xool fooy tëdd di wetu. dangaa gaañ joxuñu loolu Fallou Ndiaye dañu indi vingt cinq bolok bii di ñëw. Hmm. à domicile ak mbër mu am public. da waaw ñu ngi leen sant di leen gërëm hmm. mbër moom ñun duñ wax si moom dara ndax xam nañ ko bu baax. yéene bi rek lañuy ñaan yàlla rek mu yegg mooy yéene bi mooy nekk roi des arènes incha allah te gëm na ko nit ki moom àdduna loo nekk rek am si gëm-gëm hmm. sunu borom dala koy jox hmm. waaw moom gëm na loolu te xam naa ne sunu borom incha allahu rabi dina ko jox ku hmm. neexee yàlla waaw di sant di leen gërëm te gars yi nañ ñëw ñu bëre nag ah waaw. dama am lu ma siy dolli tuuti rek mbër mi day def loo xamante ne mbër masu ko def si làmba yéen presse bi xam ngeen loolu gis nga buy génn fii mbër mu mag la fii mbër mu mag la tëngéej buy génn fii nga xam ne mbër mu mag la dafa am ay éléments yoo xamante ne ñoo koy sécurité fii sécurité supporter ba estat loolu jeunes gis nañ ko loolu yéen ba ngeen dalee toppal làmb ba léegi mosoo leen ko gis kon loolu ñun dañ bëgg bu ñëwee tey estat ngeen di jël loolu sécurité bii di bii di bii di gunge supporter yi di leen dalal ba violence du am ñu génnaat ñibbisee waat si jàmm loolu faaw ngeen koy jël parce que loolu gisagoo leen ko si làmb ba léegi moom moo nekk seul mbër bu ko fi def te kii surtout mbër la kii Papa mooy maamam kon kii dafa bokk ci làmb Papa mooy maamam Papa bu mbaaw bu caaro yi kon kooku xam ngeen ka loolu rek laa si doon dolli. waaw doom yaay <laughs> yóbbante si kan ah. armée waaw waaw waaw ah, lu ma non armée armée armée xaa bi wolo dafa tiit armée armée mooy loolu <laughs> ah armée fi la nekk ñun dañuy dañuy di ñëfale non armée mooy loolu de ah naa <laughs> ngi koy ñaanal jàmm rek ak tawfeex quoi di ko ñaanal combat loolu laa yo non maa ngi koy ñaanal jàmm di ko ñaanal combat yàlla may ko combat ah non man maa ngi xool li si kanam quoi wax dëgg yàlla non waxuma mu ngi si ginnaaw mais man maa ngi xoolee si kanam quoi. man man boog maa ngi xoolee si kanam <laughs> moom daanaan la champion la. non maa ngi xool sama bët maa ngi xool si kanam quoi vraiment ah. ah? non parce que gars yi ñoo ñooy réclamer loolu. mais ma ma teg jéego si kanam quoi. Hmm. te dafa jot sax dafa jot vraiment. parce que jot na quoi parce que samay morom yëpp boo xoolee ñu ngi teg jéego si kanam ñi ma ñi ma bokkal génération. booy man boo si booy booy booy sama génération boo tuddee benn boo ne ñaar mën nga siy teg wala boo ne benn mën nga siy teg wala boo budul lool mën ngay njëkk a tudd kon jot na man ma ma euh, teg beneen jéego comme ñoom quoi am journée bu baax am am adversaire bu baax tey ngay dee quoi loolu laa bëgg. non man safara laa gën a yittewoo comme ay ménga mbooro yooyu waaw bu daan moom lamb loolu la boo daan da ngay xaar quoi. faru jar non man proposé nañ ma faru jar avant yi non man bëréew ma ak ñooñu waaw ma ak ñoom du niveau si làmb nag man dépassé naa ñooñu Omar Saliou non non ñooñu dépassé naa leen dama koy jël fi ñu naa ay dooleeg yooyu du combat quoi daa jël si kanam rek xool ba xam waaw yi si kanam kala Boy Jules bu buggee na ñëw ñu bëre làmb jànq la neex la pare naa man du ma tudd benn booy mais ku si pare pour bëri si ñooñu rek pare naa waaw sama booy la moo ne moo ne booy la waaye yow ban gara grand amul fii man du boy booyu kenn de leer laa leen wax du ma booyu kenn sëñ bi waaw waaw du ma <laughs> paa baa ngi nii maa ngi toog <laughs> waa di sant bu baax di gërëm bu baax fi ñu doon fi ñu waroon ubbee sax mooy suñu maam Amsata Fall foofu la lañu waroon ubbee di ko sant di ko ziar di ko ñaanal jàmm ak tawféex di ko ñaanal gudd fan ak wér mu yàgg fi lool Fall loo fi gën a yàgg mu gën a baax si ñun di la sant di la gërëm mais amuñu sa fay gis nañ ñu ñuy taxawoo biir ak biti si ziar ak si baatim amuñu fay di la sant di sant daara gi yëpp ñoom maam untu Moustapha Abdou xam nga bàyyi ñu kenn di dugg fayan di sant xam nga Pa Cheikh aussi tamit Pa Ousmane suñu maam mère Aram aussi tamit mère May Fatou aussi tamit amuñu amuñu fayam di dugg Thiembène tamit di def noonu di sant Père Thiaby xam nga euh, ñoom Baye ki Baye Laay di sant ñëpp xam nga di sant waa koñ bi yëpp aussi tamit di leen gërëm bu baax a baax a baax a baax di sant sama yaay bu baax di sant sama yaay bu baax di sant sama yaay bu baax baax a baax ne amuñu fayam moo amee combat jàmm gën la dëkk de mais day bàyyi yitteem yëpp ñëw fii soutenir ma taxawu doomam ba combat yi passé dafa ñëw ba fii après tànk yi di métteeg yooyu noonu xam nga loolu loolu sa doom rek nga ko mën a defal te aussi tamit gis nañ bu baax li mu ñuy defal di ñaan yàlla xam nga mu am wér ak tan ba fekke suñu njariñ liñ bëgg si moom yëpp xam nga ak ñi ñu wër yëpp yàlla def ko liñ bëgg mooy xam nga rek am lu kawe suñu njort si làmb di soutenir ñëpp képp ku nekk suñu ginnaaw rek waaw nga nga gis ci sa bopp bu baax a baax a baax a baax a baax xam nga loolu la ñaan buñ ko nëbb lool buñ ko amee te defuñu ko rek yàlla buñ am dara si làmb mooy dimbali ñu nekkal ñu gis ci seen bopp bu baax gën ñoo gis seen bopp si ñun di ko ñaanal ñëpp. ab bépp bépp doom incha allah di sant bu baax comme ni ma ko waxee woon sànq rek monsieur le ministre monsieur le maire Omar Cissé amuñu fayam bu baax cinq bologu ticket la ñu jëndal di ne bi mu ñëwee ba léegi jooyuñu vraiment fuñ ko woowee duñu tànqamlu dañuy conseiller aussi tamit dañuy jàppale suñu combat aussi tamit di ko sant di ko gërëm di sant aussi tamit à Sall à Sall tamit suñu monsieur le ministre boobu may nañu xaalis bu bëree bëree bëree bëree bëree ak ak kii tamit euh, di ko di santaale aussi tamit euh, rakam ji Khadija aussi tamit di ko wax ne mention spéciale jàpp na si bu baax a baax a baax a baax ak yaa kineloo aussi tamit di ko sant bu baax a baax a baax a baax Pape Cissé aussi tamit ñu ngi koy sant bu baax grand bu baax la mosuñoo tànqam lu bu baax a baax Lamine Diop aussi tamit le président aussi tamit ñu ngi lay sant Assane Ndiaye aussi tamit ñu ngi lay sant bu baax a baax këram lay nekk aussi tamit mu siy jàpp bu baax Père du aussi tamit amuñu fayam kooku mosuñoo tànqam lu benn yoon di ko sant di ko gërëm xam nga di sant ñëpp képp koo xam ne nii jël nga sa dërëm ak sa ñaar dërëm aussi tamit def ko si ñun parce que bu ñu amee combat mairie na gépp ñii dañuy joxe ñii ñii ku si nekk li nga am sa doole rek da nga da nga ñu siy jàppale parce que dañuy defar ay carte soutien dugal ko si kër yëpp aussi tamit ñëpp dañ siy jàpp ñëpp dañ siy jàpp aussi tamit xam nga ñoom amuñu seen fay vraiment di leen wax ne jërëjëf kontaan nañ vraiment ak képp koo xam ne nii yaa ngi ñaanal rek fàttewuñu la benn yoon képp koo xam ne yaa ngi ñaanal aussi tamit sant ñu ngi lay sant di sant Serigne Lass aussi tamit ni ko wax ne amuñu fayam waaye père père tamit père ñang aussi ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax a baax baax we Ousseynou aussi tamit ñu ngi lay sant ah di la gërëm àlla sama copain nee nga nag maa mere ba la foofu ngay dof ta yow kooku sama sëriñ la mais xoolal dama koo yab damay yanu ba si kaw di dóor si suuf kooku moom bëggal boppam ba dara aussi tamit amuñu fayam amu ñëpp paasise waa Cissé tamit amuñu fayam ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp Baye Mbaye suñu père Baye Mbaye aussi tamit ñu ngi koy sant depuis depuis kunun amuñu fayam ñu ngi koy sant si Zaire ak si Badem Ousmane Ndoye aussi tamit ñu ngi koy sant ah ay Omon Ndoye xam nga Thier Paye bu xam nga Njawar xam nga bàyyi ñu kenn gars yi den sant Ndiancho Ousmane Kondir <laughs> Ibaye Dey aussi tamit ñu ngi lay sant di la gërëm xam nga Aziz Ziza ñu lay sant Karaj ñu lay sant yëdd <laughs> premier supporter ñu ngi lay sant Mbay Seck borom gerte gi amuñu sa fay per laay aussi tamit ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax sama copain ñu ngi lay sant père Ablaye Faye aussi tamit ñu ngi koy sant di gërëm di sant Mérina bi yëpp cëw leen méngoo b këri kaw këri suuf ci Colobane Arafat Jaloore Coxo Baye Fall waa Jokul waa Dangu xam nga waa Guy Murit waa Kasoor waa Lendeng Guy Murit jamono xam nga bàyyi ñu fen fen ñu ngi sant ñëpp di sant booy ndaw yi samuraay yi samuraay ndaw ndaw ndaw yi ñu ngi leen di sant di sant tamit booy joueur yi aussi tamit jàpp nañ ci affaire bu baax a baax a baax a baax di sant aussi tamit waa idéal bi ñëwee teeru nañ ñu leen di sant di leen gërëm quoi di sant ñëpp parce que ñun ñëpp tëngeej la on est ensemble quoi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp bàyyi ñu kenn ah Baye Djily defeyaan la kooku man lay bégee Baye Djily man la de non koñ instant soxlawuñu ko koñ koñ daan nekk si kii saako bi sama copain laa si xaw a rus quoi mooy loolu quoi borom Italie defeyaan la mooy loolu moolul <laughs>